asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw dañoo bëggoon waxtaan jëme ci les dépenses publiques maanaam euh, li nga xam ne si obligatoire citoyen bi da ko war di def ah, lu demee ne fay impo fay patente ak fay yoo xam ne le trésor publique moo nu ko imposer ñu war koo def loolu benn takk la boo xam ne moo jiitu beneen takk bi ci des dafa am loo xam ne lislaam moo nu ko sant nu war koo doxal lu mel ne ay muurum lu mel ne azaka ba sarax loo xam ne lislaam moo ko sant la religion ñu war koo def muy obligation moom leneen loo xam ne euh, lu ñu sant la wala nu sant ko suñ bopp maanaam sarxe ak addiya addiya mooy koppar yooyu nga xam dañ ko jël di ko jox sëriñ si ah, ñu di ko paquete mu bari lool te ñaari dërëm di ci dem trésor public euh, ma seddu États-Unis ak yeneen dëkk yu bari ba ci dëkk jullit yi euh, bu fekkente ne bénéfice bi nga am mu ngi toll ci fukki junni euh, nga war caa sarxe war caa génne mbirum koor war caa génne asaka war caa joxe addiya ah waa am dépense yoo xam ne si lu mel ne impôt mbaa patente da nga ko ci fay pour nga mën a dund du mën a nekk ndax financièrement doo mën a dem ndax sarge yooyu moo tax ma naal l'Assemblée nationale war nañ ci jóg comme ni ko américains yi defee képp kuy laal xaalis xaalis bi nga laal euh, da nga ko déclaré bu fekkee ne ci fay lempo danañu ko fay par force bu ñu xoolee xam ne fayoo euh, su fekkee ne fayoo am na ay alkaati yoo xam ne alkaati yu trésor public bi la bu def mel ne Amérique ARS daf lay topp da lay topp ndax dërëm la boo xam ne danga ko jëlee ci askan wi jëlee ko ci réew mi askan li war ci amaat kon war nga am loo tut loo jël delloo. Euh, ba ci église yi comme jumaa yi église yi lépp loo xam ne am nañ ko dañ koy déclarer bu fekkee ne ëpp na la nga xam ne may leen leen ko ñu retirer ko ci delloo ko ci askan wi ba ci prêtre yi noonu lañ leen di def nu Sénégal amu ci leen loo xam ne si lu jaar yoon la nu ne ngay amee sa xaalis fu ne la xaalis buy jóge xaalis yoo xam ne suñu ci kër yi ñu tëj ñu doon nii milliard ñi nga xam ne aussi dañoo toog ci kër yi xëy ñu gontuñu ñu leen fekk di leen joxe addi addi yi ñu leen jox ci at bi boo ko xoolee lu gàtt gàtt gàtt dana am solo waaye askan wi duñ ci am ñaari dërëm mu une situation yoo xam ne war nañu indi xam-xam seet nañ koy doxalee. prenons exemple du Maroc Maroc bi demee ba am problème mu xar xaritam bu lay jeex dañoo toog at yoo xam ne kenn tabaskiwul buur bi. buur bi ket mooy tabaski bu ko defee reyaale yi ñëpp te pourtant Maroc ay jullit lañ te lislaam nangu na ko lislaam nangu na ko exemple lu mel ne gàmmu lu mel ne màggal buñ toogoon tey comme exemple ñu toog lu man ñaari at ñëpp gàmmoo wala ñu màggali seeni kër junni nag yooyu nar a dee junni nag yooyu nar a dee mën naa calmer inondation yi mu ci dëkk yi waaw man naa calmer inondation yi nga xam ne mooy turbali ci dëkk bi mais loolu boo koy def danga koy teg ci diine teg ko ci xam-xam il faut ñuy demee xam-xam bàyyi fanatisme indi ay argument yu scientifique nu bokk xalaat ci am na problème yoo xam ne ñoo ko aggravé suñ bopp fii ne Sénégal yi nag dootu am nag dootu am ndax gi nar rey ci gàmmu gi ak tamxarit ak nag yi nar rey ci màggal gi buñ ko defoon juróomi at téye nag yooyu téye nag yooyu Sénégal dootu manqué nag ci àdduna nag ci àdduna mais nag bu fekkent da nga yaakaar lu taxaw da ko war a lekk te amoo xam-xam boo ko dollee day mujj doo am dara doo am dara dama inondation yi am ci dëkk yu mag yi bu nu arrêté woon juróomi at ñu ne kenn ku nekk na nga màggale sa kër ten fexe indi boroomi xam-xam boroomi xam-xam yu toog gëstu xaalis boobu seet fu ñu koy awale ci côté finance boo xam ne bu wér jaar dama inondation day jeex ci dëkk yu mag yi inondation day jeex tàkk tàkk ci dëkk yooyu même aji màkk mën nañu ne juróomi at yi daa daañu de benn délégation boo xam ñooy dem màkka ajale waa Sénégal ñooy état benn di financé pour le public tànn ci junni wala téeméer wala ñaarte walla fukk fukk dem ajali réew mi loolu du yàq dara ci suñ lenn te daañu save capital boo xam ne inondation yi nekk Dakar dina fi jóge li ñuy dépensé ci loo xam ne amul sans sens dafa bari lu mel ni tabaski par exemple am na ñoo xam ne waru leen parce que mënuñu ko waaye foog ngi def ko parce que la rivalité ak encore surtout da xaar mu ndaw bu mag am na ñoo xam ne li am lépp dañ ko ci yemale te l'islam wàccete leen ko kon li demee noonu dama ne boromi xam-xam ñoo war a toog moo tax assemblée nationale bii ñëw il faut ay jullit bari ci il faut ñu sukkandiku ci alxuraan il faut ñu xool réew mi il faut ñu aw ci diine pour génn situation bi ñu nekk. béy bi ñu ne kenn ku ne xam naa ni kilo bu yàpp léegi cinq mille li ci lay jëm ba six mille ban raison lañu am tey war a dajaloo rey junni nag pour la mel ni ku musa lekku yàpp bu nu ànd sunu dal toog xam ne dañoo soxla ay nag ci réew mi état bi ne fii juróomi at bu fi nit reyu nag waaye ku bëgg a lekk lekkal ginaar yu importe wala nàngam yoo xam ne wala ginaar yoo xam dañ koo yar prisonniers yi defuñu dara. biir dakaar lañ tëdd pour lan dañ yóbbu prison yi ci àll bi ubbi ay tooli ginaar di sàmm luñ ci liggéey ñu développé business bi loolu la te yàq gi ci bopp moo bari waaw yàq gi moo bari càcc gi moo bari ba le trésor public mënta taxaw kenn ku ne sa façon kenn ku ne na ngay doxale waaw ñi ngi sàcc état bi ñi di nax public bi di dajale loo xam ne léwul sax il faut ñu développer les intelligences développement boo xam ne da ngay dal xam li la war xam fi nga jëm ci sa ginnaaw maanaam sa taarix nga gëstu ko bu ko defee économiquement daañu mën a jubbanti réew mi te yàlla dogal na nous avons tout ce qu'il nous faut pour se amul lenn loo xam ne manqué nañu rek ba réew mi bañ a dem li nga xam ne moonu tënk jot mooy dañu dugg ci diine joo xam ne xamuñu ko. muy islaam parce que nin la ko war a jàngale jàngaluñ ko noonu am ñoo xam ne nag ñoo ko foqar ci di ko dundee di ci dund te it amul kenn koo xam ne sañ nga ci ak wax te sa bakkan xaj na ci yooyu yëpp lu état bi war a waxtaane la ñu seet li ñuy def en tant que de fis de sénégalais ñu seet bunt boo xam ne buñ ci jaaree réew mi dana mën a développer dama nous avons tout ce qu'il nous faut pour se waaw ay nit daal ñoom seeni pexey bokk di dund ci kaw askan wi ba coono bi nga xam ne moo dëpp ci seen kaw mënuñ ci dara ndax bu ne Sénégal fukki réew ak ñett yi ëpp doole ci àdduna alal ci la bokk te amul suñ lenn loo xam ne ñoo ko contrôler suñ bopp loolu ab jullit waru koo nangu moo tax assemblée nationale bi ma leen di wax na ci jullit yi bari te chrétien yi dugg bokk bu dañu mën a toog sukkandu ci lakkum diine ko lia diin bokk defar réew mi baatub laïcité ñun xamul lu mu doon du dara ci franc yi ñoo ko fi indi waaw laïcité kii la locomotive de satan du lenn loo xam ne oto la boo xam ne musiba ak seytaane fu mu bëgg a dem ci laïcité bi lay jël kon en tant que des sénégalais kenn wàññi fanatisme kan wàññi fanatisme tabaski bu ne xam nañ ko aj juróomi at kenn du fi rayum xar pour tabaski pour lan pour supporter le besoin loolu rek lañ ci jublu waaw te affaire fanatisme ñu teg ko ci suuf sëriñ bi nga xam ne màgg lu baayam la woote kooku li mu woote mooy li koy dundal ci at mi li koy dundal ci at mi moom la la woote moom dana dund est-ce que yéen da ngeen dund est-ce que yéen da ngeen dund kilifa goo ci waxal sax sama bàyyi sama yoon bi sama bàyyi sama yoon bi ngay dégg waaye doo dégg mukk mu ne askan wi doo dégg mu ne dëkk sàngam doo dégg mu ne mukk xale yi doo dégg mu ne jigéen ñi fajowul doo ko dégg saa baay rek ngay dégg te réew mi bàyyam ak maam moom moomu réew mi dañ koo bokk ñun ñëpp dañ koo bokk ba bu sa kàddu jib en tant que kilifa dangay ngay généraliser ba chrétien ci yëg ci boppam ba athée bi yëg ci boppam ba ki amul yàlla sa yëg ci boppam waaye boo ko yemale ci saa maam wala saa rek mbir mi day fat te du dem moo tax il nous faudrait des hommes sûrs député yoo xam ne daañu mat sëkk yoo xam ne buñ toogee di wax li ñu wax lépp day retourné ci njariñul askan wi bala ngaa xalaat yow loo ci am na nga xalaat askan wi nga xam ne ñoo looy yebal luñ ci am ñoom waaye boo jëkkee intérêt personnel dara lu sotti damay am ñu àddi yi nii dajale at at ci lañ juddu at boo ne fommal sa màggalu bàyyi gi mën na laa fetal ñu ne te lu amul lu ci lu ci dëppoo lislaam lislaam digluwu ko fenn day lu baax nag ndax sagal ki nga xam ne li nga ma muy sa héros lu am solo la ma d'accord ci en que nationaliste waaw dama ci d'accord waaw li yàq laa ko mën a wooyee yàq laa ko mën a wooyee ndax dox xam ne boo ko dencee bu déwénee mu jëral la ay junni denc ko moo gën rey ko léegi lekk ko léegi ak yàkkamte la ak ñàkk dal bu dalee rek sedd nii sax mooy lan dangay xool ku jóge fii dem màkk yow yoru juróomi dërëm ah da ngay lijjanti wala nga bokk ci am natt ah koppar yi nga mën ko jël delloo su ci sa kër ah yàlla jéggal la ci parce que d'accord dem màkk war na ku ne mais ci kaw nga man ko te it am na dem màkk yoo xam ne bañ a dem ko gën ñu dajale alal ji gas ci ay teen dajale alal ji jàngal ci xale yi dajale alal ji faj ci jigéen yi nga xam ne ñoo nuy jur dama ne jigéen ko ku mbubb la mbubb mbubb nag boo ci daggee ak musóor dagg ci kaala dagg ci askumba su ndaw yorutu mbubb ay sagar nga ay sagar moo tax jigéen ñi kii ku ci ku jur mat fukki doom boobu dañ koy jur te benn genre ku nekk musoo musulaa tiim nga jeexal moo tax kan dellusiwaat ànd ak trésor public bi ñu wut ay garde fou yoo xam ne ñoo gérer économie bi comme ni américain yi def ARS bu ko def ñu mën a tabax suñu réew ànd ci jàmm te kenn ku ne la ngay lekk nga xam ne ab jullit nga nga lekk lu lew lii ngeen di dajale da ngeen dee ko fi dajale lu ngeen moom kon maa ngi jégg lu baax te ñaan jàmm euh, man lu Ousmane Dramé bu la réveiller conscience yàlla na buur yàlla suturaal te indi jàmm ci réew mi peace and love peace and love jaa ngeen jëf